coupe du Sénégal nga xam ne match ya résultat yi wadd na léegi euh, match yi nga xam ne moo ci gënoon a euh, di yan koy commencé nga xam ne euh, bu ngeen xoolee li nga xam ne mooy tadde efficie Casa Sport doon na fubal Tëngéej FC ak AIC wala boog ak seen excellence bu Thiès ak ay say Saloum nga xam ne match yooyu ña ngi koy commencé ak euh, goney Casamance yi nga xam ne ñoo Casa Sport nga xam ne daanaka yëkki nañ match boo xam ne ñu ngi ko doon football ak goney asalem mi nga xam ne la mu mujje euh, mooy match ba ñett ak demoon nañ ca waaye bañ demee ba nga xam ne loolu lépp euh, sotti na gars yi di dem ak dikk kenn mënta gañe sa morom ñu dem série péranti gone yi nga xam ne ñooy goney Casamance ñoo mujj gañe juróom benn tiro bi ci juróomi tiro bu yoo xam ne yëkki nañ ko nga xam ne goney Casamance yi fii may wax ak yow romb nan euh, seizième de finale ya nga xam ne mooy euh, coupe du Sénégal ak goney génération foot yi nga xam ne euh, ña nga doon daje ak équipe bi nga xam ne moo nekk étoile Lustana nga xam ne wala boog GFC ma nga doon daj équipe bi nga xam ne mooy RS Yoff RS nga xam ne goney Denis Biram Ndaw yi mujj gañ a ñeenti bal ci ñett yoo xam ne yëkki nañ ko ci match boo xam ne daanaka match bu métti la woon boo xam ne match boo xam ne daanaka xumboon na trop ci wàllu animation ci li nga xam ne moo nekk ay bii nga xam ni zéro zéro la bi mujjee woon kenn dugalul sa morom dara série penalty leen mujjee gën a dani Birame Ndaw yi tey ji tombeek fukki fan ci weeru mai ci atum 2002 2022 nga xam ne match booba jeex na ak gone ASC Thiès yi nga xam ne wala boo gone CNEPS excellence bu Thiès bi nga xam ne euh, ñoo nekk fii euh, ci sunu wet nga xam ne seenu match ña ngi ko doon dajeek étoile euh, Lustaana nga xam ne gone CNEPS yi ñoo ko fekkee woon waaye match booba gone yi nga xam ne ñoo dëkk ci Thiès demoon nan ba toll ci ñaar ci benn yoo xam ne ñoo ko mëne woon waaye xiinim xaana ji moo fa bari woon ba match ba mujj ñoom ñu égaliser égaliser goo xam ne daanaka la nu mujjee mooy se penalty yi série yi ba nga xam ne daanaka ba ñu ko yëkkee euh, gone Thiès yi danoo ñàkk euh, match boobu nga xam ni euh, ñu ngi ko ñàkk ci juróom benn tiiréew bii ci ñeent wala juróom ci ñeent yoo xam ne yëkk nañ ko ak géej bi nga xam ne moo nekk Teungueth FC ASC Saloum match booba tamit série penalty la jeexee juróom benn tiiréew bi la Teungueth FC am ci gone yi FC Saloum yi nga xam ni ñoom it danoo ñëwoon ngir wut si ndam waaye nag Tëngéej du leen may loolu fekk si leen dóor leen moom loolu du yomb moo tax match ba ba méttee ba nga xam ne ah, fu ne dugg nañ fa di ko lijjanti mënta sotti lanu mujj mooy série penalty yi gone yi nga xam ne mooy gone Tëngéej FC ñoo